dañu wara japp security ci sécurité jigéen ñi seen diggante dëkk bu metti bi ci ñima ko saña wax dëkk bi dafa dëgër nañu dox suñu diggante dëkk bu dëgër bi ak jigéen ñi ndem cent franc la bo mëna dimbalé sa rak bu jigéen wala sa mag bu jigéen nang ko ko dimbalé te wax maa ngi itam waxna itam maa ngi war wax ci jigen ñi seen sécurité bi ñu wara gérer seen bop ci kersa nañ ci bolé seen dignité jigen da ngay diñ jigen da ngay am personnalité jigen da ngay xam sa bop yamale say bëgg-bëgg jigen su fekkee lo gis rek bëgg ci boo moytul sa périmètre de sécurité di ko jéggi te soko ko jéggee di nga fa fekk góor gu ñak yërmande go xamni mom soko ñaané rek mu ñaan la nañu ma baal ma delluwaat ci góor ñi nañ sécuriser jigéen ñi bañ di leen bëmëx ci biti nañu ma baal nañu bàyyi di sant jigéen ñi ñuy débrouiller moo xam sa sœur moo xam sa soxna la nga naan ko débrouiller ndax yow mi ko sànni ci biti ngir mu yi xamoo ku muy fekk ci biti ndax góor ñépp yemuñu su fekkee téeméer rek nga yor sama sama waa ji nga bëgg ko jox ne ko débrouiller en tout cas nañu añ déedéet am na góor ñoo xam nag ay jàmbaar lañu waaye débrouiller su dee am ñun góor ñi nañu débrouiller suñu débrouiller ba sonn nag fekk téeméer rekk lañu am mais ñu toog téeméer yooyu ñu bokk ko ak ñoom dama mës a wax ni yow góor walla yow wéy jur say dom ak sa soxna suñu tàmmee gis ni su dëkk bi dëgëree nga jël pot ñu jël pot nga poñse sa mbiskit wala sa mburu ñoom ñu loolu dafa am lu muy def ci seen éducation waaye suñu tàmmee gis ci yow su dëkk bi dëgëree nga bëmax leen mbiskit wala mburu mu wow yow way jur nga génn ci biti di dem feneen di noosi am na lu muy def itam ci seen éducation moo tax ma wax ni bu ñu leen ci cadre débrouillé ndax soo leen débrouillé loo suñu génnee ci biti duñ xam doo xam kuñ fay fekk am na jigéen ñoo xam ne itam ay jàmbaar dëgg lañu xaaruñu kenn xaaruñu boroom kër am na jigéen ñu am yërmande lool ci seeni boroom kër waaye c'est pas une raison sànni leen weccit na leen débrouillé leen ba suma gis nga nga yow góor nga liggéey bàyyi cent francs sa kër wacc ñu taajal la añ boo xam ne xam nga ni 100 francs togg ko togg ko nga war a mën a lekk ba suur ci xel mu dal sa xel na dem ci yonent yàlla ayub la muy feebar feebar feebar la feebar bay tar tar tar tar su soxna si daan liggéey indil ko balaa moo jël loxom bi di ko dugal ci ñam bi dina ko laaj fa ko jëli nañu sécuriser jigéen ñi woy jur itam nañ sécuriser seen doom yu jigéen yow waaju ñëw di ko seet na joxe rek su joxee rek nga libéré leen ñoom ñaar loolu insécurité ëpp ko sa doom bu jigéen génn doxi ñibbisi indaale ndawal wala indaale lekk yow nga war a mën a lekk ba suur wala mu jox la ñaari junni nga war ko mën a jël ci xel mu dal loolu day yokk seen insécurité te damay wax wax naa ko sànq jigéen ñi itam ci néegu sëy nañ leen yërëm jigéen ñi da leen xool des fois ñoom dañu dem ba amatuñu lu ñuy gagner wala lu ñuy perdre comme ñu nekk ci sursis nañu ma baal ndax sama classe gi ni ñu la mën a takkee tey teral la jur ak yow njaboot suba suba noonu lañ la mën a bàyyee ak sa njaboot dem defi leneen te jigéen soo ko jabot, ba bàyyi njaboot pension alimentaire sax doyul ndax yor xale dafa metti waaw dafa metti waaw waaw nañu ma baal du góor ñëpp nag waaye am na góor ñoo xam ne nañu ma baal comme ay apprenti super du apprenti super yëpp a yam nag mais gis nga apprenti super su la bëggee yab ci superam mën na la neexam jàppale la say paan jappale la say bagage mais so reçu ba yek ba mo encaisser sa paas boo moytul so wacc so yeexee sax mu fëgg auto ndax paré na ci yow jël na la mu soxla won ci yow du apprenti yépp nak nañ ma baam limu bëgg wax moy ñun waxtaan kat des fois ci suñu waxtaan dañuy togn célibataire di len togn rek di len togn rek mais divorce yu bari itam nañ ci waxtaan nañuy waxtaan itam ci jigine ni manque de sécurité biñu nekkee ci biir kër yi fi may tëjee mooy waa ji dafa xëy bëgg takk soxna mu ne baay bi dama bëgg nga wax ma nan laay def ba trouver la femme idéale baay bi ne ko fàtteel loolu ay femme idéale fàtte ko cherche plutôt yow à devenir l'homme idéal mu mu jeex l'homme idéal ci yërmande l'homme idéal ci jom l'homme idéal ci nawloo sa soxna l'homme idéal ci suturaal sa soxna l'homme idéal ci sargal sa soxna te damay wax ni suñu maam aadama ba mu wéetee yàlla utalu ko ay copain de pour ñu wéttali ko yàlla soxna la ko utal pour mu wéttali ko te jigéen ñi ñun ñëpp damay wax ni euh, la femme c'est le cœur c'est c'est calme et l'apaisement de l'homme jigéen mooy dalal góor waaye yow ku góor ki ndaw sii la fekk si sa kër foog nga dalal ko ba pare moom mu mën laa dalal te jigéen ñi ay jardin lañu ay tool lañu waaye tool nag doo ci jikkaani nag bëgg cee witt banaana nañ ci bàyyi xel